mais ñi am dégg te di firee ci xaqiqa waxuma mufassirina yeeg fuqaha yeeg déedéet mais boroom xaqiqa yi laysa ka mithlihi shay ñuy laaj ndax shay'iyatul xaq wala shay'iyatul xalq waaw ban la ci parce que dara dara dara melul ni man mais ñu ni dara daray lan parce que yàlla bu tuddee baatu dara dimension bu mu ak bu mbindeef dee wax dara dimension yi bokkul ni ñuy taxawalu ci mbedd mi taxuñu yàlla naan laysa kamithlihi shay boobu yonent bi lay waxal te boobu ku ko ëpp ci ñi yàlla bind amul waaye bañ li dal chrétien yi ci Isa ibnu Maryam dal jullit yi ñu dem ba bëggu ko jàppe doomu yàlla yàlla nag di leen wan ni ak auteur bu nit mën a am laysa kamithlihi shay waaw bu ko defee li yàlla jëfante ak moom moom yonent bi question bi ñuy posé mooy ndax yàlla def ko ko may walla def ko ko lebal ndax wasiyatun aw dayn waaye itam tudd na sax baatu aataak baatu wahabaak yooyu yëpp yuy wone ni maye na waaye yàlla lum la jox bés dina la ko laajaat laajin ya moo nekkul benn waaw loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mu wax wala mu sédd ko ñoom Zeyd ibnul Xaarisa te bàyyu Zeyd bëgg ca dof ku déggoon nit la moom yonent bi parce que yàlla bëggul woon ci moom mu nekk doomu aadama kese kese ndax boo nekkee doomu aadama kese kese dangay yem ci bokk ak nit ñi ceeb bi ak bokk ak nit ñi cere ji solu fii tiitaru fii te yooyu taxawul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësul nangu ñi nekk ak moom surtout entourage am ñu am connexion bu direct ndax dafa indi lu bees te ñoom xadiisu ahdin fil islaam dañoo jógee ci jaahiliya ay tuubeen lañu kon nag xëy may leen lépp def dul wóor moo tax yoneen ci bi du nangu connecté leen ba mu jeex dafay def ak ñoom partage de connexion waaw waaw xam nga partage de connexion bis bu boroom coupé rek yow nga pare ca waaw parce que dafay am lu ko yàlla di jox mu xam ni ci moom rekk la war yem waru ko jàlle dem ci keneen loolooy tax muy def partage de connexion lum ko ci wóor ni warul jàll ci keneen rekk mu coupé dina am beneen cours bu ma amee jot ndegam dina ko am waaw <laughs> walla <laughs> Abdou Aziz <laughs> na am euh, ci oto bi mu ni ma li nga wax yëpp d'accord naa ci ba mu des lenn ma ni ko lan mu ni ma li nga ni feebar bi du fi jóg foog feebar bi dina fi jóg nag waaw <laughs> ndax liñ la soxlaa dafa bare waaye fekk na waxinu humilité rekk la bañ wan yàlla dëgër bopp bañ koo wan dëgër fit ah góor gi nee na mag ñi daanuñu jàmbat seen tawat dañ ko daan neexal ndax xam ni bu neexee yàlla tawat bi rey leen moo tax ñu ciy teey waaw looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa kon partage de connexion boobu te ba bëgg bu ma amee yaatu dafa am ay experts yu def benn enquête enquête bi moo lan moo jotale alquran ak assunna mu di wax bu garaaw alquranu wa sunna nga ni li leen jotale lan la dëgër fit ca la waaye fekk na boo amee dégg te dofuloo léeg nga am foo yegg te du wàññi dara waaw xam nga ñun moo tax nit ñi mën a jubóog ñun du bare parce que fii grand mbubb la ñu gëm moustache yu weex lañu ñu gëm baatu ilimaan ji lañu gëm waaye li Aziz wax léegi rekk xam na koo xam ni boo ko fekke woon ak kilifaam danga naan ndax dukki yi ndax bu génnee ci biti li muy wax ak nit ñi ak bu nekkee ci biir li muy wax ak kilifa gi da ngay posé wu question est-ce que même personne bi la fekk lu ci ne ay niveau la am na lu kenn warul génne waxe ko ci biti waaye bu ngeen desee yéen rekk na ku ne dinga xam lu nekk ci sa poche ak lu ci nekkul loolooy tax comme noonu ma ko waxe woon moom góor gi ni bu masaan dégg nit ñi naan Sëriñ Babacar ni mu lewate daf koy reeloo ndax tàng gi ci Sëriñ Babacar nee na foog na ni moom rek moo ko xam ndax moom rekk la ko daan wan waaye lu ci nekk mu ngi aju ci cëru boroom am na koy yilif ndax yàlla bindi kilif téef ga waaye doo ko yëpp ndax source ba ngay jële moom it ca même source ba lay jële bu ko defee kon nag ñuy am dégg te moo di yonent bi lu mu wax rekk toowu taa nit dana ci teg bëtam te li mu wax ni diine tumuranke la ñëwee waaye dina delluwaat ba tumuranke moom diine te xam nga bu fekkoon ni tumuranke gi daf koy def defe ca ñi gëmul diine sax nga mën comprendre mais ci ñi gëm diine fi la diine di tumuranke bada diinu gariban wa yahudu gariban kama bada waaye fekk na yàlla ci boppam mooy tere leen noonu parce que ñi contre diine te di ko jéem yàqal